yéen soppey alhaji mouhamadul fadalu mbakke noo ngi am mbégte bu baax ci sàkku gi nga xam ne sàkku nan ko ci nun mu def waxtaan ci seydul wara ci xawtul wara wa sami seydil wara wa xalifatu xadimi xayril wara cheikh mouhamadul fadal loolu mooy adresse sëriñ fallu sëriñ fallu mooy xawsul wara mooy sami seydul wara mooy xalifatu xadimu xayril wara cheikh mouhamadul fadal xawsul wara mooy xettlikatu mbindeef yi loolu moom kenn nattabli mooy sammi seydil wara mooy turandoow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne faadilun mu faddalun lépp ci ay turam la sëriñ fàllu itam mooy xalifatu xadimi xayril wara mooy ki nga xam ni 1945 ba 1968 moo fi nekkaloon xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy xalifatu xayril wara sëriñ fàllu nag waxtaan ci moom yomb na lool rawatina ci réew mii di Sénégal ndax fi la gënee jamono fi la jànge fi la wuutoo sëriñ bi fi la jëfe li mu jëf lépp fi la bàyyi ko wuji boromam te bindee fi rek la ko doon jëflanteel kon neex na fee waxtaane naqaree waxtaan nag dana ko def naqaree waxtaan ci sëñ fallu ndax li koy waral mooy loo ci wax lu bari bari bari bari bari am na keneen koo xam ni kii xam na ci sëriñ fallu wala jaar na ak moom ci loo xam ni mom feeg xamoo loola moom mel na ni xamoo sëñ Fallu ndax jëfam moo moo maatale jamono bindee fi yëpp bindee fi jamonoom ka nga ca xam ak ka nga ca xamul la nga ci jot a dégg ak la nga ci jot a dégg kenn ku nekk sëñ Fallu jaar na ay yow ci barab boo xam ne bii doo ko fàttali ba fii nu toog kenn ku nekk sëñ Fallu sa bakkan fekku la woo xam ni saa yoo jàqee ba dara dara dara sësu ci lu dul alku mbaa perte wala sa yaakaar tas wala toroxte sëñ Fallu ngay daal di woo mu daal di lay xettali xettaliku xettaliku goo xam ne gii dara du ko du na mel dara du woon du woon gaawe ni moom sëriñ Fallou nag ku ne xam na ni mooy saanil xulafa radiallahu anhu wa anna bi jaayihi alladi wulida laylata israi wa miraaj sallallahu alayhi wa sallama bi muy gane jamono mi ngi gane jamono moom Cheikh Ahmadou Fadal ci dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam Daaru Salaam gi nga xam ni Sëriñ Tuubaa moo ko sanc ci ama dasa sin mbaa du ko sori dara euh, muy atum junni ak ñetti téeméer ak ñeenti at ca gàddaay rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ak booba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ndeyu koor maamu koor ci weeru ndeyu koor di chaban kës du kës du rajab bi ci weeru ndeyu koor di rajab ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar ci la Cheikh Mouhamadou Fadel gane àdduna ci Daaru Salaam gis nga dëkk boobu sëñ Fallou gane jamonoom sëriñ Touba nee na mag ñi laaj nañ ma ni ma lu tax Mbàkke loo sori sori sori sori saa yoo yeggee ci war a tudd Touba ak Daaru Salaam turu Daaru Salaam ngay jëkk tudd ci Touba te Touba di sa dëkk bopp nga jaayante koog yàlla wax ni mooy pàkk bi nga soxla woon ci adduna te saa yoo yeggee ci war a tudd Touba ak Daaru Salaam jëkk woo Daaru Salaam loolu jaaxal na nu mu sëñ Touba ni leen ndax di lu ma leen sori sori su ma leen woondoo baatinu daaru salaam a jiitu ndax ku ne xam na ni daru salaam googu ku fa teg sa tànk bàkkaar mënatu laa yóbbu sawara dara mënatu laa yóbbu sawara foofii fa la Cheikh Mouhamadou Fadal gane aduna ginnaaw boo xamante ni bii Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke xalifatu rachidul awal radiallahu anhu wa ana bijayhi wa rahim al jamiha gane na aduna moom itam ba am juróomi weer ci la Serigne fallu gane jamono Serigne fallu du seen jamono yal yàlla sama borom yeesal ay leeram te taas ci barkeem li koy wax sëriñ bi mi ngi fekk muy taalif xasida ga gu tudd mafatih al bishri wal amna wal janna fi salaati wa taslimi ala al muqimi sunna mu mel ni day aati ganek jamono sëriñ fallu mu mel ni bu ñu tëgg ba noppi caabi bu yàlla tëgg ba mu yegg ba yeggal ni sëñ tubaa am mu ni ca teg ci ci ngam xool mu di caabi mu ne ko waaw sama borom lii nga ma jox dem ab caabi lay nuroo mu ne ko waaw mu ne ko lu muy tijji mu ne ko caabi bii ma la jox sama magasin yi mbég yi moo leen di ubbi magasin yi mucc yi ak kóolute yi moo leen di tijji mooy tijji bunti àjjana yi mboolem ñetti wunt yooyu caabi bii moo leen di tijji foofee muy waxanteeg loolu sans borom ndawni assalamu alaykum niko serigne bi soxna wu Bousso am na mo xamni serigne Fallu kon mooy mafatihul bisri wal amna wal janna fi salati wa taslim ala muqimi sunna moy caabi mbit moy caabi yermandi ak xewal serigne Fallu moy xam moy caabi ajjana gis nga bi nga xamanteni bi wax nañ ko niko serigne bi gane na jamono serigne Fallu dafa daldi di dog téere boobu mu don talif daldi way juróom benn way yoo xam ne yi daf koy teeroo ak a sargale gan googu bàyyi ko ci suñu borom tey ngëneel ndax fadlulaahi yuutiihi man yashaa ku ne xam ne fadlu mooy ngëneel bay bu njëkk mooy yaa faadilan fadalahul xalaaku yaa man bihi faaraxani imlaaku loolu mooy lan man Seex Ahmad Bamba day sama maqar yëpp jeex na baatu sama lux mooy maqar yëpp maanaam sibooru ji fi barab nee na man Sëriñ Tuubaa sama sibooru fi barab jeex na dee ci am lenn lu may lu may lu may ñeetaane ci barab jeex na ndax koo kii kenn dong dong dong la woon ci nguurug sans borom gi te it bu fekkonte ni yàlla ci coobareem teggale na ma ko mu feeñoon feneen it danaa fa lijje huit kon bi nga xamante ni bi yàlla bëggul ma jëggaani dara bëggul ma àbbaani dara bëggul ma wuti dara fenn lu baax ci la ma dimbalee defal ma kookii di alfadlu ngëneel lool yi yërmande jooji xéewal goog yi mu defal ma ko doom mu feeñ ci samay kër sama kër bokk ci sama njaboot yaa man bihi faaraxanil imlaahu tëggaale wuñu la kan maa ca way la yaay doomi Bamba yow Gallo Mbakke tëggaale la kan maa ca way la yaay doomi Bamba yow Gallo Mbakke tëggaale la kan maa ca way la yaay doomi Bamba layla ya doomi Bamba dama la ni Sëriñ Fàllu mi ngi juddu layti Israa wa wa sallam guddi gi nga xamante ni bii ci la moo dëppoo guddi gi nga xam ni ci la yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bàyyi ko woon ci kaw suuf ànd ak jibril alayhi salaatu ci ndigalal yàlla sunu boroom yàlla rañaane ko yóbbu ko ca kaw wan ko boppam wax ak moom dénk ko yóbbal ko feccli ko dolli ngëmam dolli kóoluteem delloosi ko ci kaw suuf Usmaan ibnu Xasanul Jawbari nee na radiyallahu anhu anna sababa israa'i wa mihraaji sallallahu alayhi wa sallama anna al arda iftaxarat ala samaa'i li waral yonent bi yéeg riñaan nee sababu sayir si mooy asamaan ak suuf dañ doon gënante kenn ku nekk defee ni yaa gën sa morom ku ne ci ku ne ci ñoom ñaar defee ni yaa gën sa morom asamaan di tiitaru ci kaw suuf suuf di tiitaru ci kaw asamaan kenn xamu ci sa bopp kenn xamu ci sa morom loolu yàlla bëgg leen a atte sababu baatin bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yowm alqiyamati al akbar moo war a nuyoole yonent yëpp ak bindeef yëpp moo war a dox seen digganteeg seen borom gan gi nag su fekkente ni yaa ko war a nuyoole ak kii muy gan war nga koo xam jëkk ngeen di bokkat ndaw yemb ci kanamam nit ki boo ko bëggee xamale kenn wala nga bëgg koo ñaanal njëkk ci kenn war naa fekk nga am ak kookee beneen jataay bu dul rek jataay boobu yi yonent yàlla sama borom dajale yéen bindee moo tax yàlla sama borom riñaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nekkam fu kenn fekkewul kenn jotiwu fa ñu wax wax foofee lu kenn loo xam ne lii ñii danañ ko xam ñii duñ ko xam ak yoo xam ni xaraam na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko xamal kenn ak yoo xam ni su ko soobee dana ko wax xamal ku ko soob ak yoo xam ni waru gar la ci moom ci mu xamal ko ñëpp yooyu xeeti xam-xam la fa la fa jëlee Ousmane ibnu Xasanu Jawbari yi nee na asamaan ak suuf seen xuloo boobu ak seen ñiir ñiirloo bi bu ñu daa xuloo la ko dindi mooy dafa am bis asamaan ni suuf ana xayrun mink لأن الله تبارك وتعالى قد زينني بالبلاد والبهار والشجر suuf dañu asamaan maa la gën ndax boo ko dee seet dëkk yaa ngi dëkk yaa ngi ci sama kaw ak géej yi ak garab yi ci man la leen yàlla def wa xaalif sama wa ana xayru mink li anna fiya shamsu wal qamaru wan nujumu wa gayraha asamaan ni suuf yooyu maa la gën ndax may itam jant baa ngi fi man weer waa ngi fi man biddiw yaa ngi fi man ak yeneen yu yooyu wa xaalisil ardu annasiya baytun البيت ببكة المباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وأن في بنو آدم من قسم الله عز وجل بإكرامهم على سائر مخلوقاته سورني أتمان يوم لغن نخ كابا جنجا خمني لقب يالا ci mujju muy lo xamni ci mom lañuy xolé yalla ci walu xibla mi ngi ci man di néeg boo xam ne bii sunu borom nee na inna awla baytil wudaa linnaasi allazi bi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayinatun maqaama ibrahim wa man daxalahu kaana aminan ni ko doom aadama yi itam ci man la ñu nekk te xam nga li mu def yi bari bari bari bari yàlla sama borom nee na doom aadama yi ñoo ko nit a ko gënal ci lim bind te nit ñoo dëkke sama sama kaw wa xaalat samaau anna fiya baytul maamuur yatuufuuna wa yazurunahu kulla yawmin sabuuna alfa malakin yadxuluunaha wala yaxrujuuna ila yawmi alqiyamati وأن في عباد مكرمون الذين لا يتقوتون ولا يبولون متحرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن مني ماء فاختلط به نبات الأرض مما تاكل الناس والأنعام إلى آخره asamaan suuf yow maa la gën ndax su fekkee te ne kaaba gi nga may tiitaroo ak nit ñi xanaa xamoo ni may itam baytul maamuur a ngi ci sama kaw bis bu yàlla sàkk juróom-ñaar fukki junni malayka yàlla dana leen sàkk ñu dugg ci sama biir ci biir baytul maamuur te ñu ca dugg dootuñu génn lu dul bis penc te ba nga ni fii ñu koy waxe seetagul te ñooñu liggéeyal yàlla ak jaamu ko rek ak di ko sàbbaal ci xeeti jaamu yàlla yi gën a kawe la ñu fay def kooki xam nga ni wecc nag wis na fay na kaaba gi ba wis ko te xam nga ni malayka yi nga xam ni yàllaa leen taggal boppam wax ni laa yasuuna laaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaroona duñu sanguwaay duñu xaytu duñu may yàlla duñu góor duñu jigéen amuñu bànneex yàlla bind leen ci leeru boppam ñoo ma dëkke man asamaan te itam xam nga ni yow mii boo naatee maa tax ndax dégg nga suñu borom ni innama masalu hayaati dunya kama in anzalnaahu min assamaa'i فاختلت به نبات الارض بما تاكل الناس والانهام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا ونهارا وجعلناها حسيدا كان لم تغن بالامس ndox mi nga xam ni moo feesal géej gi feesal dex yi saxal garab gi ak gàncax yi ci man mii la bàyyi koo asamaan nag mel ni kuy bëgg a jekku lima lima lim suuf ni dënn ba ci yàgg mu ni ko fa jaafatil ardu waxaalat yaa ayatuha samaau عالمي النفي ولد سيد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ذاك رسول الذي لولاه لم يكن لم نكن وأنه قد وطن في وأجرى سريحته علي نكو بول صن لمن غم مبولم لبا وين قام نكو كي نيوخ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميغا خامي ماك يو بونو يالا دي بين گيم ماك تيرانغا ما تخ اجنا سوره بودي ام موتخ بو يالا دي بين دوم ادمي اك جامني بو يالا دي امال خيوول كوكو تخ ci la yàlla sama ba borom bind lim bëgg bind lépp kooki fi man mii la ganee adduna te fi man mii la dëkk sariham bii fi man la koy woote te su fi nekk fi man mii lañ koy denc sama biir xam nga ni werante saa yu yeggee ci ñu tudd yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku ko jëkk a tudd yaayee ndax raamal wara nee na fadlin musraina loo ni ko Sëriñ Tuubaa waxe wal fadlu inda rasulillahi qaraaru raamal wara فللمسرين له والبل عند رسول الله قرار راما ورانا يفل للمسرين له والبل عند رسول الله قرار كلتا يديه لها سعي تلاسم بل وباس لمن كان ومن جرى loolu nag mooy mooy sama bus li ñaan mi su asamaan nag fa ajjati si adu sama sama ala jawaabil ardi fa tawajjahat ila llahi tabaraka wa taala baakiyatan qailatan ya rabbi fa bi izzatika inni asaluka an yasada sallallahu alayhi wa sallam fiya asamaan rangooñ asamaan nag daal am kersa rangooñ ni yédeet mu ni yàlla sunu borom yow yàlla maa ngi lay ñaan ci sa nga ak sa suuf mii ginnaaw yay na ma nangu naa ni moom a gën ndax moo dëkkoo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñaan naa la nga may ma may ma barkeelu ci sang boobu nga di ñaane ko jële ko ci suuf ma barkeelu ci moom ngir suuf yey na ma te leer na ma ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek la ma yee loolu mooy képp koy waxal ba mu tudd sëriñ Fallu booy boo bàyyi kookee yey na la bu dee njëg jaay ko bu dee mer euh, seexalal sa wàll lépp loo xam ne liy wax dem na ba ñu tudd sëriñ Fallu mel na ni suuf ba yeggee ci wax ni am anna habibal Mustafa salasa watanu fii wa ajra sarihatoo àlla ya boobee lay la lay la ñuy teggil mooy la asamaan daal di def daal ne noppi ñaan yàlla barkeelu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba yàlla ñaane ko ibnu hasan jawlu nee na bi loolu amee la yàlla suñu borom nag wax jibril ko demal ajjana wut fa aw fa fekk yonente ko asamaan barkeelu ci moom moo tax ibnu hasan jawlu nee na ba jibril demee tabbi ajjana ma ngi fekk ñaar fukki جروم نيار فك جوني فك يو خامني فك لو سي نيك رسول الله او تورم لا نبي سي سب جيم نيغا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غا خامني يا تاونا من رياض من رياض الجنه وعلى جبهه اسم محمد صلى الله عليه وسلم نينا فك لو سي نيك تور محمد رسول الله سي جيم ني فورتي دري ادنا نينا ماغي صفا سو خامني نك مام ماغا ني تنك فلي ماغا فلي سد دي جوي نينا مانيكو مالك يا براخ انا لا لا دال يو فاسوي بير ادنا ني سي خيوالي نيك ana looy sëgg fii di beru di jooy mel ni boroomu naqar mu ne ko jibril li may jooy yow mi yaa ma ko yóbbee lu jige junni ak jaaroon nga fi di wax allahuma salli ala sayidina muhammadin bi alihi wa sahbihi wa sallam wa barak tur woowi julli ci moom muy muhammad fa waqaha fi qalbi muhabbatun wa baada zalika lam ahtaj ila taamin wa sharabin boobaak léegi junni at la ba ma déggee tur woowi ngay muy muhammad ba nëga ni maa ngi nii ma naanuma tur woowi moo def ak cofe rek sama xol may ñaan ci yàlla mu wanale maag jëmmi borom nee na mu ne ko ausili ko bi maasuuf te yow mii yaa gën a yey ci riñaane rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàpp fasoo yi indi ko màkka moom la takk moom la yonent bi yéegi guddi googi nga xam ne ci la sunu borom wax ni subhaana alladi bi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu alim muy guddi riñaan mi ci la sëriñ Fallu Mbàkke jóge ca moomeelu sunu borom nga teew fii ci kër sëriñ Tubaa gi bokk ci njabootam bokk ci ay doomam ba ni mu yore kàddoom sëriñ Fallou nag wasa sin la gane adduna hijriyatan di atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn diggante gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa diggante juddu yonent yàlla Insa ak booba di 1886 fi qaryatin asasaha waaliduhu hiya daaru salaam ci dëkk ba nga xam ni ca la waajuram wu tedd wa euh, euh, mooy mooy daarul hijrati muy daaru salaam bi Sëriñ Tuubaa bàyyi ko Mbàkke Bawol bi mu gàddaayee ànd ak Seex Ibra daaru salaam googu la sanc ba mu ko sancee dégg nga li mu wax ne ahmin bi daaril fata tuuba li maskanihi daaru salaami kama bil makka wal madina nga xam ne nee na pàkkub daaru salaam képp yàlla booleel na ko ci mbootu makkatal mukarrama ak madinatul munawwarati sëriñ Fallou bi mu feeñee wax nañ ni jant boobu bépp sëñ mag bi dafa santaane bu ñu ko jox dara bu ñu ko jox ween nañu ko bàyyi mu woor jant bi nga xamante ni bii toll na ci jamonoy jàng ñu jox ko baayam di sëriñ Momar jaaral moo ko jàngal alquran ba mu wattu ba mokkal ba ni mu tolloo ci jàng xam-xam am na ñu wax ni ci jamono yooyu dafa bàyyi koo dem ci bàyyam sëriñ Daaru Muxti moo ko jàngal xam-xam mbaa ba muy dem ci sëriñ Daaru Muxti fekkoon na booba mu sàmbalee jàng xam-xam waaye fa la mottalee am jàngam waaye ci jaar waaye sëriñ Fallu ci ndawam loolu du ci sori ndax loolu ñu wax biographie li ci ëpp solo mooy nit ki lépp solo ci dundam mooy fa mu tàmbalee xàmmee ndi joram ak càmmoñam wala fa nga xamante ni bii dem na ba am ngërëmal yàlla tàmbalee xettalee ko dimbalee fa ko bindee fi xamee ba wuti ko kenn ku nekk di ko xëy ñii di ko gont kenn ku ne sa ajo yi bopp tax laa jóg nga xam ne yeggal na fa sëriñ Tuubaa yeggoon mu yuraanaasu afwaajan ila baabi daarihi ka màkkati yowmul ak akbari lil amal nga xam ne saa yoo xëyee bu duggal sëriñ Fallu bi dafay mel ni yowmul arafaat ndax mbooloo la ko tàmbalee ci biir kër ba ci buntu ba ci pénc ma te kenn ku nekk ak aajjëla tax a jóg ñii ra ñii tawata leen tax a jóg ñii njàqare leen tax a jóg ñii waxi buura leen tax a jóg ñii waxi kasoo leen tax a jóg ñii ab xiifa leen tax a jóg ñii bopp bu uboo leen tax a jóg ñii aw ŋàññ wu daj jamono wuñ bëgg ma fay ba kenn dootu ko tuddatee leen tax a jóg ñii xettliku si ci wàllu koppara leen tax a jóg ñii bind si kaami di ko wane seen tax a jóg te kenn ku ci nekk boo dee dellu aaba bi ma raala min xëyri na siyaati la la taxoon a jóg da nga ca am lu sedd sa xol guyi kon foofu mooy ku ëpp solo ci waxtaane ko Sëriñ Fallu ndax moom Sëriñ Fallu wax nañ ni Sëriñ Tuubaa mas na ko woo mook Cheikh Mouhamadou Moustapha xalifatu rasidul awali euh, ñu bokk teew fi kanamam nee na ñuy fekk sëriñ bi di toggal boppam du demee ni soom bi moom sëriñ bu mag bi mu ngi teg ndab teg tëb soom bi di ko toggal boppam ba ñettee nuyoo sëriñ bi jox leen digalal ñu toog ba ba mu leen di wax li leen di doyee mu toog ab diir daan leen yéen ñi maa leen woolu ndax damaa bëgg kenn ku ci nekk ma defal ko li mu bëgg lépp ma bëgg nag kenn ku ci nekk waxal boppam li mu bëgg ma defal ko